ca limaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko jàppale nag ne jamono ji Ayiba Daffé di njiit la moom la mu xam ne daal moom mooy audition premier ministre jamono ji daal mënut a nekk ak règlement intérieur bi nga xam ne moom la ñu daal di seetlu foofee ca biir assemblée nationale mel ni Yewwi déchargé na Ousmane Sonko Yewwi censuré na bi lekk DPG nañu ko duppe euh, ci xët wu njëkku yéenekaay bi Sud Quotidien moom ci coow loolee nee na groupe parlementaire Yewwi Askan moom fa mu taxawee leer na nañ débat bi nga xam ne daal moom moo ci nekk ci bi lekk DPG daanaka jaru ko ndaxte buñ koy xayma rek jamono ji règlement intérieur ba ak na mu tëddee bokk na daal yenn rëq-rëq yoo xamante ne ni ñoom ñooñee ah, gis nañu ko ca ba tax rek ñu jàpp ne moom Ousmane Sonko jamono ji daal amul lenn loo xam ne war na ko faa mën a def ngir amal ab déclaration ñëwle ñu daal di ci tënk rek lépp loo xamante ne daal ah, jëm ci ñàkk ko kóolu teef rawat rawatina rek mbiru ko motion de censure nañu ko duppe kon Ousmane Sonko ni niinul dara ci li nga xam ne daal ñu ko ci euh, wax ci euh, mbir mi. direct ci news yéenekaay nañu Ayib Daffé xotti na xottet règlement intérieur bu assemblée nationale bokk na ci daal mbirum fraude à la loi ni ñu ko duppeete ji ci xëtu njëkk yéenekaay bi moom Ayib Daffé daal di rek xam ne nag ni règlement intérieur bi lee bokk na ci règlement boo xam ne lépp la ñu rek daal di abrogé ba tax na jamono ji mënuñ ci sukkandiku rek ngir dellu soit def ab déclaration de patrimoine document bi daanaka fàtte na lépp loo xam ne coppite la ñu daal di ko indi ci loi organique bu 2019 rawatina loolee jëm rek ci wàllu ko poste premier ministre loolee euh, la direct news yéeni kaay xëy dëxañ ci xëtam bu njëkk loolee di xeeñ ab dilatoire bu ñu sukkandikoo ci source a yéeni mi nga xam ne xëy na rek waat ko fàng ci xëtam bu njëkk am na nag ab falsification ci règlement intérieur bi le loolee bokk na ci li nga xam ne daal ñoom ñooñi loolu la ñu daal di xamle ba noppi dellu siwaat rek di waxtaane rek ne moom ayib dafay groupe parlementaire bi le la ñu moom mooy audition ba euh, mënuta nekk euh, benn yoon Les ko yéenekaay moom la mu ca wax mu lekk DPG DPG doon na loo xamante ni daal la mu war a def la te moom moomee ñu ngi ko ci xaarandi kon nag groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar tey ji bu ñu moyut ñoom daañu indi ab tontu ci coowal lu ni mel la Ousmane Sonko dafa ragal wala déet bokk na ci loo xam ne la tribune yéen kaay samp na ko rek ne gi ni ab laaj Ousmane Sonko ana rek lan lay ragal ci kanamu député yi lépp tax na bëgguñu koo gis ci mbiru ko DPG bi lépp bokk na ci tey ji loo xam ne yéen kaay bu groupe des médias loolee ko daal di ëlëm ndax moom jamono ji lan moo leen di dawloo ba tax na rek bëgguñu jàkkaarloo kii nekk loo loolee tey jii daal moom mooy di tax coow la bëri fa loola coow am na amati rek ca boru que le peuple yéene kaay manifestation la ca ambassade bu Sénégal féete ca booru ko Ouagadougou jàppale nag ne na ngay yuuxoo Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay ñoom askan woowe di rek wax ne nag ne ñoom ñooñee dañu leen a wor wor rek esprit panafricaniste Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye daal ñoom ñooñee dañu jëfandikoo rek ay mots panafricaniste ngir rek yegg si ca boppu réewu Sénégal lañu sa doon def nag ay ndaxa sa xandang la ndaxta kott lañu fa nekke woon mënoo te ñu leen di jox bi lekk réew waaye daal jàppale ni jamono ji bu fekkente ni ci taxawaay boobu noonu doon la ñu taxaw kon euh, waratuñu am dara leen loo xam ne ñu ngi koy wax nañu tëj seen i gémmiñ ñu sukkandiku ci euh, le peuple yéenekaay Le Soleil moom sax ta mu njëkk dellusiwaat na ci mbiru ka conseil des ministres ak lépp loo xam ne jëm na ci politique industrielle yu yees yi wàllu ko budget ba mu mel ni Bassirou Diomaye Faye taxaw na ci di ca samp di euh, fësal yi lekk contour libération yéenekaay moom tey ji desandi na ak ñun ca marché yu DRFJ ak Puma classé loolee mel ni rek tey ji ab secret défense Cross la bu ñu sukkandiko ci euh, sunuy naataango tàggat yaram stade yéenekaay dañu xamal nag ne jamono ji euh, euro 2024 fësal na rek tableau huitième de finale ya ponkal yi le daal am na nañu ab tableau de la mort ndaxte bu ñu koy xayma Allemagne Espagne France ak Portugal ñoom ñëpp ñoom ñoo féete ci benn pàcc bi loolee di firnde rek ne ay jongante yu mag daañu am ci les quarts de finale ay chat lii ci yootu yéenekaay xëy tey ci kii di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu ngi lay jaajëfal. cant ak ngërëm ñeel na merci beaucoup maa ngi lay souhaité nga passe une belle journée on se retrouve à demain incha allah. jërëjëf Grégoire ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yi des leen ak ñun bu ko defee léegi léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat gën a yaatal xibaar yi ak la revue web.